ban euh, selaan bii nii nii fii nii. waaw maa maa ngi lay neefee. yaa yoon bi nii rek. waaw léegi ah. hectare bi yëpp. Ah, hectare bi yëpp dañ ko mën a doxo. 14000 ah, mètres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 man ni ma ko gisee daal comme maa waxoon ni yaama bombe dina ma jaaxal parce que génnewul ak benn résultat bu leer comme loolu rek la ko maa mu jee wax ñu ko yaama gis nga am nga mais tamit loolu yaayam ko tegaloon diit rek man moom loolu laa foog mais tamit may laaj question est-ce que Maysa ak Madior duñ jote foofu ndax Maysa day bañ. maajo dugg te maajo dina dugg loolu daal laa doon laaj merci. waa salaamaaleykum seen série Madior ak laa bëgg a wax parce que dama koy faral di suivre di ko seetaan mais man li ma gën a contre mooy kee Naar Diop ndax Naar Diop lii muy doxalee si digganteem ak Madior normal du yoon. wara accueillir Madior ci yoon mais warul li muy def joor ak naqaral joor ak ni mu reye yaayu Dior waru dugg fitne tamit aussi ci Madior daa waroon jàppale Madior mais nag dafa mel ni Madior mi ngi di am victoire moom ak joor parce que kii mi ngi commencé di perte nànk par nànk waaw mi ngi commencé perte nànk par nànk man de loolu laa man ci lu ma wax naar Diop moom moom nii mu mel danga koy bàyyee noonu rek mën na théâtre dong de mais tamit lii muy tamit ci lu bon dafa ëpp trop c'est trop wii dafa ëpp c'est trop dafa ëpp c'est trop parce que pour man boo commencé lu bon tey ba sobaa di nga xaw a baax tuuti mais moom bon gi daf ko ensonné mais comme kii ka jàppale nga xam ne mooy papaay yaama comme mi ngi commencé di mandek affaire yooyu man am naa yaakaar ni Madior dina am victoire joor ci kee naar joor ci perte lay mujj am naa ci yàq asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen waa Xew TV TV maa ngi leen di bu baax a baax euh, man de ni ma gisee affaire bi man daal comprendre ma joor ak maa joor affaire bi daf ma xaw a tuuti quoi daf ma xaw a leer tuuti euh, daf ma xaw a euh, desal leer quoi comprendre ma lii quoi diggante joor ak maa joor diggante bi bëgg naa ko trop waaye dëmb joor nu mu doxalee daal xaw na ma dérangé tuuti quoi xaw na ma dérangé tuuti barki yàlla xaw na ma dérangé quoi billaahi wallaahi tallaahi dañoo waroon gisee joor bu mu ñëwee dafa dafa waroon gisee am maa joor fekk xuloo waruloo am ñoom ñaar waruloo xuloo quoi man ni ma gisee mbir mi ñoom ñaar waruloo xuloo c'est comprendre war ñëwoon xuloo dañoo waroon ñëw jàmm sant c'est comprendre ñoom ñaar yëpp ñuy waxtaan xam nga tonton Libaas ci boppam moo waroon ñëw tonton Libaas moo waroon woo Madior joor ci boppam waruñoo ñëw këru ñoom Major quoi waaw joor tonton Libaas moo waroon woo su woowee Major Major ñëw booba après dañuy kii quoi xam nga dañuy gisee quoi c'est comprendre waaye na affaire bi dafa jaxasoo de barke yàlla dafa jaxasoo quoi billahi wallahi tallahi dafa jaxasoo wallahi te ñoom ñoo bokk di naar ak euh, Mariama ak yaayu xale bu góor bi ñoo bokk ndey ak baay ñoom ñoo bokk ndey baay waaw affaire bi tamit ni ma gisee dafa yaakaar dafa mel ni affaire bi day dellu ci Major de. su demee boo jor su demee boo xam ne ñoom ñëpp ay kii lañu ñu ko waxte sax ay ñoo bokk ndey ak baay euh, jor day dellu quoi jor day dellu ci major waaw noonu laa gisee mbir mi man de waaw jor su demee boo xam ñoom ñaar kee naar ak kee yaay ji ak kee ñoo bokk ndey ak baay ñoom ñaar yëpp dañuy bokk quoi waaw après day dellu quoi. ça va ah tey filmuma jooy bi ni ma ko gisee mooy tey daal maa jooy man ni mu def joor parce que man neexuma dara ndax joor dafa réeroon benn instant ay at mu ngi noonu mu ngi koy wër comme tey rejeté bi nga ko rejeté du neex man daal tey noonu laa gisee film bi voilà. asalaamaaleykum wàllu xew TV nuyu naa leen rafetlu liggéey bi ah série Madior ak Dior bi tey moom. wax dëgg yàlla am niñ ko doon xaaree neex na lool neex na waaye nag fenn rek la ñu xaw a jaaxale mooy maajoor ak li mu wër joor yépp bu joor ñëwee mu def boo waroon na daw dabi joor baa mu téye ko baa mu neexal ko baa mu défendre joor sax yooxu yaamu boog na ko bàyyi jàmbur bul def noonu bal jël défendre défendre joor ci kanamam ba mu xam ne maajoor mi am na fu mu ko teg waaye bu ñëwee taxaw di défendre yaama ak moom du muy dundloo yaama te xam na ne yaama néew na jigéenu wérut ci lim waa yaakaar waroon na mën a taxaw ndax maa eh, joor neexal ko def ko leneen baa mu daw dabi ko sax waaye taxaw fi mu taxaw ba joor dem léegi moom kañ fan lay gisee waat joor ak joor mer bi mu génnee ci kër gi est ce que maa joor dina yombaat pour mu jot joor te ñun man deman bi ma ko gisee muy ñëw maa ngi naan heureusement maa joor dina gisaat joor ñu trouvé waat nekkaat parce que man maa joor relation moo ma neex man moom bu may sax bugguma sax mu sori may saak bopp joor moom bugguma ñu sori waaw maa joor nag waroon na daw dabi ji joor defal ko ah ñu xool bii ñëw ba xam ne muy mujjee maa ngi leen jaajëfal yéen ñëpp kontaan nañ série bi neex na ñu ngi koy siiwul ñun ñëpp. salaamaaleykum waa Lu Xew TV na ngeen def bàyyi ngeen ci jàmm kontaan ci naa si Madior Diop macha allah Madior li tax mu faral yaama sax xamu ko ndax bu xëccoon bu xëccoon joor ci wetam. Dior du mën a dellu fee te du mën a xam vérité bi Dior il faut mu dellu kër mama Banel mook mama Banel dinañ lijjanti ba affaire bi ne koroj xam ne yaayam seex la mama Banel dina xool lijjanti ba xam ne naar mi ci seex yi la bokk te Dior bu toogee kër Madior du mën a venger comme ni mu war a venger mu dem kër mama Banel toog fa man ñoom ñëpp fari venger wu naaw jóg naaw jóg gisagul dara mi ngi doomam gisagul dara sax te joor il mu dem kër mama banneel ndax mu xam ne moom ak doom mama banneel ay doomu nday ñoom ñaar waruñoo sëy doom bu góor bi dafa mel ni Pape Birahim la ndax Pape alalam jooju xam naa tubaab yi ñu ko adopté woon dañoo dee mu doonu alal bi noonu rek lay mën a nekkee Pape la Dior ak Madior mën nañoo sëy parce que ay doomu nijaay ak doomu bàjjan lañ waaye li ma ci jaaxal mooy papay Dior moom du ñëw du ñëw lijjanti ñaar ñoo xamante ne ñoo bokk ndey ak baay ay seex ñaar ñëpp mu ëmbal leen. salaamaaleykum waa Lu Xew TV. Eh, ak Madior ak Dior man la soxna Fama depuis Maroc maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax ni Madior ak Dior moom nekk na film boo xamante ni film bu neex la macha allah man moom dama koy seetaan moom benn duma ci raw même bu ma amee bu ci mu ma ci raw sax lendemain bi dama def lu tuub ba seetaan ko Eh, li ma si am daal lu may wax mooy maajoor daal li muy def moom man je si suis pas d'accord parce que nit ki daal boo ko bëggulee waroo nekk ak moom xam nga di naan danga koy bëgg-bëggulu te bëggoo ko moom muy yaakaar ne bëgg nga ko te bëggoo ko am na neneen nu mu ko mënoon defee dem ay kër xaritam dem fu ko neex daal mënoon na ko def mais kanta di indi ay jigéen si biir kër gi saa moom je ne suis aussi tamit joor euh, tamit ma neex la ça me plaît beaucoup Fama Dieye depuis xew TV bi na ngeen def ngi ngeen ci jàmm alhamdulilah maa joor ak joor a ngi gën a neex macha allah mi gën a daw naar Jóob bi rek naar Jóob daw na nii rek ma yaakaar ne gaynde la moo sañ lépp waaye tey de daw na ñaw. waaye nag joor nag yàlla bu mu marié doomu ndayam bi yàlla bu mu marié ak moom balaa bi yàlla na xam ne ñoom ñaar ay doomu nday lañ maajoor moom dafa gis maman Banel maajoor bu duggoon gis maman rek lépp dina leer dina am tuuti lu leer daal maajoor woo dugg gis maman Banel waaw. waaw salaamaaleykum salaamaaleykum maa leen di waa Lu Xew TV. di leen nuyu yéen ñëpp di nuyu groupe liggéeyale ñëpp di leen sant di leen wax tuuti si série bi macha allah macha allah maa joor ak joor fi mu ne a koy seetaan ñëpp a koy seetaan moom film bu yeete moom wax dëgg yàlla bu yeete moom te lu am la nu nit dund la macha allah yal na leen si yàlla defal ndam si darajay Muhammad sallallahu alayhi